ci Abdullah ibn Abbas mu ne bi nga xamante ni na nanu Qabil euh, mag bi nga xamante ni Qabil rey na Habil nee na boobu aadama mu ngi mag nee na nature bi daf ko yëg ba am na ci garab yoo xamante ni ca la ñu amee dégg ndax naqarlu dégg nga rey ba rey ba nee na itam ci la ñam yu bari wexe nee na ci la fruit yu bari foroxe waaw lu demee ni ki limon yeeg mandarin yeeg yu ci bari ñam leen yu safoon suukar waaye mettitlu musiba boobu di musiba bi njëkk ci kaw suuf looloo tax ñu yenn garab yi am dëkk yenn ñam yi daal di forox looloo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul looloo taxoon itam suuf si dem ba nga xamante ni am na tilim tilim bu ñuy tuddee poussière loolu lépp du dara lu dul rek mettitlu gi nga xamante ni di nga mettitlu neen ko kirim bu rëy boobu foofu nag la suñu maam Adam yége ne am na lu xew gannaawam bi mu ñëwee nag ba Inde ci la yëg ne ndeke rey na nañu doomam boobu di Habil mu metti lu ko lool wax nañu ne sax Abdullah ibnu Abbas e, daf ko weddi ndax am na ñu ne keroog suñu maam Adam def na martiya jooyi doomam jooju di Habil waaye e, Abdullah ibnu Abbas daf ni E amul benn ci yonent yàlla yi ku masa woy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am waxoon ne woykat la shaacir la ndax waxam bu jekk ndax jawaamiul kalim yiñ ko joxoon am na ñu yaakaaroon ne woykat la waaye yàlla moo wax ne wa ma allamnaahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alayhi sallam mosul nekk woykat yonent yi ko jiitu woon itam mosuñoo nekk woykat wante marsiya bi nga xamante ni suñu maam Adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la boo xamante ni mu ngi ko bind ci langu suryaaniya ndax Adam nekkul woon arab bi mu ko bindee ci langu suryaaniya dénk ko doomam jooju ñuy wax Chiith moom itam danañ ci ñëw Chiith euh, ginnaaw bi Habil dee moom moo ñëw waaye moom bi muy judd moom juddoowul nekk cheikh dafa judd moom. dong lu tax ndax bu juddoo ñëw ci lay mën a takk lëbu daam yi nga xamante ni moom moo doon cheikhu habil te jigéen la joo xamante ni narul am jëkkër te jigéen ju amul jëkkër ci société mën na indi musiba bu rëy moom la Sidi Xaaji Malik Si nettali ca xilaasu dahab di wax ne wa gayru chiithin fa ma tatiihu munfaridan xawaau takrima nuurin gayri musdahami moom chiis nee awa la mu doon am ci doom yépp ay cheikh lañu waaye siis dong mooy ñëw te nekkul cheikh nekk moom ñëw moom dong kon ñëw na ngir ñaari xikma xikma bu njëkk bi moo di ñëw na pour fas yeneen nekk jëkkëru labuda xikma ñaareel bi moo di leeru yonent bi sallallahu alayhi bi nekk ci moom te leer googu du raj-rajloo ak kenn du buuxante kenn looloo tax mu ñëw moom dong kon lu ne rek yàlla laxas na ca xikmaam te nit ñi yëguñu ko ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Adam yàlla may ko doomam jooj ñuy wax chiis wax nañ ne sax chiis wax nañ ne chiis e moo di bu fekkeen e neneen chiis e làkk bi mu ngi jóge ci suryaaniya du làkku arab ñu ne signification chiis mooy lan ñu ne moo di hibatun min allah maanaam kii kat may la gu jóge ci yàlla ndax leeru yonent gi nekk ci moom loola tax ñu ne aadam yàllaa ko may chiis mu nekk chance am yàllaa ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee ñu ne chiis moomu nag keroog bi suñu maam aadam di génn àdduna dafa jël nag marsiye bi jox ko ko ne ko nag marsiye la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téel ma ko na ko sàmm nag bu mu réer nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamonoy suñu maam Ismail donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim wante ismaail moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi ki ko donn ci arab yi nag moom lañuy wax yaarub ibnu qaxtaan moom doom la ci yonent yàlla huut alayhi salaam moom ci da daan làkk langu suryaaniya di làkk itam làkku arab moom nag moom moo traduire eh, marsiya boobu moo ko traduire ci arab daal di koy way wax ne ni moo njëkk a war eh, moo njëkk a war fas moom yaarub ibnu qaxtaan mu ngi bokk ci arab yi gën a tedd tabarakallahu bu ñu toppee kiyam ci la yonent bi sallallahu alayhi wa jóge waaye nag moo di maamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamante ni suñ maam Adam alayhi salaam def na ko ci Habil di doomam ju baax jooju moo di marsiya bi ñu leen bëgg a wax dafa wax ni taxayarat albilaadu wa man alayha fa wajhu l ardi muxbarun qabixu taxayara kullu di taamin wa lawn wa qalla bashashatu lwajhi alsabixi wa qaabilu adaaqa almawta habila fa waa xuznaa laqad fuqida almaliixu wa maa lii laa ajuudu bi sakbi dama damacin wa maa lii laa ajuudu bi sakbi damacin wa haabiilu tadammanahu dariixu wa jaat shuclatun wa lahaa raniinu lihaabiliha wa qaabiluha yasiixu liqatli bni nnabiyi bi gayri jurmin fa qalbi cinda qatlatihi jariixu wa jaawarana allaciinu wa laysa yafna aduwun la yamutu fa nastarixu bi mu defee e, marsiya bi suñu maam xawa moom itam nekkoon jigéen ju baax jigéen joo xamante ni roy na jëkkëram ba roy ko cim njàng moom itam feelu na ko ne ko da shakwa faqad halaka jamia bi mawtin laysa bi thamani rabixi wa ma yugni albukaau an albawaaki ida ma almaru gayaba fi darixi fa abki nafsa wandil an hawaaha fa lasta muxalladan bacda dabixi foofu itam la iblis moom itam daa di feeloo suñu maam adam ak suñu maam xawa moom itam daa di way wax ne tanuxu an ilbilaadi wa saakiniha fa fi ljannaati daaqa bika alfasixu wa kunta biha wa zawjuka fi raxaayi wa qalbuka fi ada dunya marixu fa ma zalat makaayid makaayiduti makaayidati wa makri ila an faataka thamanu rabixu fa lawla rahmatul jabbaari adxa bi kaffika min janaanil xuldi riixu loolu la iblis wax marché bi nag li muy tekki moo di suñu maam adam alayhi salaam jooy na doomam ji wax ne taxayaratil bilaadu wa man aleyha mu ne réew mi suuf si soppeeku na li nekk ci kaw suuf lépp itam soppeeku na ànd ak suuf lu tax mu ne ndax jooy sama doom ju baax ci di Haabil ci rey rey gi nga xamante ni frère am rey na ko ko mu ne fa wajhul ardi muxbarun qabix nee na suuf si yépp cher na foo xool mu ngi lëndëm poussière bi jóge na ci gox yu nekk ndax faatu gi nga xamante ni sama doom ju baax ji faatu na ko kon nga yëg ni ndekete suuf ndeket nature bi ndeke asamaan si yàgg naa jooy nit ku baax ku génn àdduna ndeke kon woy bi marché bi jox nañu ne e, Habil bi mu génnee àdduna jaww ji yëpp dafa amoon poussière lu tax ndax mettit lu ku baax kii dem moo tax mu ne taxayara kullu di taamin wa law na mu ne lépp lu amoon caf ka nee sa caf soppeeku na lépp lu amoon couleur sa couleur soppeeku na ngir naqar lu génn àdduna haabin kii nee na waqalla bashaashatul wajhi sabiix nee na suba teel nee na waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waaye nee na suba gi xool ko sax na kanam ga sete woon de seteetu ko kanamam a ngi njëkk kanamam a ngi ñaaw lu tax ndax mettit lu deewu sama doom ju baax ji di habil mu ne ah wa qaabilu adaqal mawta habila mu ne qaabil moo bon moom de mosal na wextanu dee sama doom ju baax jële di habil mu ne fa naa woo naa sama njàqare wóor naa sama lakku xol woo naa sama tiis laqad fuqida al maliixu dëgg-dëgg ñàkk nanu ku saf xorom ku baax ka ku baax ka nga xamante ni xolam bu rafet baa ngay feeñ ca kanam ga kooku ñàkk nanu ko àdduna ñàkk na koo xamante ni dootu ko amati ba mukk mu ne wama lii laa ajuudu bi sag bi damain mu ne man adam lu tax duma tabe ci tuur rongoñ waaw lu tax duma tabe ndax doom ju baax nii yaakaaratuma ko kon fokk ma sama rongoñ tuuru ndax wa habilu tadamanahu darixu habil de tey jii bàmmeel muy dëkkuwaayam bàmmeel tàpp na leggam ya man de ñàkk naa doom joo xam ni sama wéttal la woon ci mbaax sama wéttal la woon ca jàkka ja sama wéttal la woon ca waqaf ya sama wéttal la woon ci dox mbokk sama wéttal la woon ci lépp kon ñàkk naa sama doom jooju mu ne e, wajaa shuclatun wala haraniinu liha biliha nee na jum yi ñu ngi bàyyi ko kaw asamaan di yuuxu di jooy maa ngi dégg ay baat yuy jooy ci kaw asamaan si di yëkkat lu tax ñu ngi jooy sama doom ju baax jooju di Habil mu ne te Xaabil dof ba ku bon ka boroom xol bu ñuul ba moom de mu ngay yuuxu lu tax muy yuuxu li qatli ibni nabi ji bi xëyri jurmin ndax rey na doomu yonent boo xamante ni rey na ko ci lu dul tooñ tooñu ko wax ko lu ñaaw defu ko ko kon nag moom mat na baaraamam wiccax yuuxu ndax rey na doomu yonent boo xamante ni tooñu ko defu ko dara lu ñaaw mu ne man aadam de fa qalbi inda qatlatihi jariixu sama xol góom bu rëy ngi ci boo xamante ni la ko ca def du dara lu dul rey gi nga xamante ni rey nanu ko sama doom ju baax jii di Habil mu ne wa jaawarana allainu wa laysa yafna aduwun la yamuutu fa nastariixu mu ne la ko def nag du dara lu dul suñu dëkkaale bu bon bi suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yàlla musal ci dëkkaale bu bon suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis moo topp sama doom ji di ko digte lu bon di ko digte lu bon bu mu xëy rey mbokkam rey rakkam joo xamante ni ñoo bokk benn biir bokk benn baay bokk benn borom mu ne ay waajiri noon bii de su dee woon ba ñu noppalu de sant yàlla wante daf dafa fas yéene ànd ak samay sët dund ba faw mbokk yi la suñu maam xawaa tontu ak la iblis tontu incha allahu ci àjjuma yi di ñëw ci leen ko fas yéene mot bi sallallahu alayhi wa sallam jooye woon doomam ju tedd ja ibrahim keroog de ba ibrahim génne àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy na waaye jooy ja nag jooy ga àndul ak yëkkat jooy ga àndul ak yuuxu rongañam moo doon sotteeku ci bëtam di dal ci dënnam pour wane ni kii fi jóge sopp na ko moo tax bu fi bu nit génnee àdduna lañu bëgg nga jooyee ko ko moo di sa rongoñ tuuru waaye nag yuuxoog daanoog yépp ñàkk teggin la rekk bokkul ci lislaam moo tax ci waxtaan wi weesu wax nañ leen li suñu maam aadam bind mu di marsiya bu am solo ki ñuy wax yaarub ibnu qaxtaan di kilifa gu mag ci arab yi moo ko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindoon ci langu suryaaniya wax nen ne suñu maam aadama moomu suñu maam xawaa feelu woon na ko wax ko ne ko daci shakwa faqad halaka jamica bi mawtin laysa laysa bithamani rabixi wa ma yugni albukaau an albawaaki ida ma almaru gayaba fi darixi fa abki nafsa wandil an hawaha fa lasta muxalladan baada dabixi mu ne ko sang bi bàyyil jooy yi ndax kii ngay jooy dem na te dootul dikk mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne jooy dootul mën a jëriñ nit ki mukk ndax fàddu na ci bàmmeel dootul dellusi xanaa kay àllaaxira rek mu ne ko ki jare jooy kay mooy bakkan bii la jonkonu bëgg rekk nga topp ko ba juumook sa boroom jooyal sa bakkan fexeel noo bëreeg sa bakkan fexeel noo bëreeg bëreeg fexeel noo bëreeg àdduna ba ñu bañ la moyloo sa boroom ndax maa ngi lay yëgal ne yow Adam yaay sama kilifa waaye nag àdduna bi du kër gu ñuy béel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañu ñibbi kàddu yu rafet yooyu la suñu maam xawaa dëfale suñu maam aadam alayhi salaam moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dale ci moom waaw waxuñu nag soxna su lay teg fitna waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu defal la dalal la kon suñu maam xawaa dalal na suñu maam aadam alayhi salaam ci naqaram woowu ndax wax nañ suñu maam aadam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan ndax mettit lu crime bu rëy bi nga xamante ni doomam def na ko waaye iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana nekkoon fay cakaay nekkoon faak dund gu neex ma añaana leen ko ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya indi leen ci àdduna bu xat bi tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara duma fa dugg man dong ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen kon yow aadam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana ñëpp safara nu jëm ànd ak man maa leen bañ iblis laanatullahi alayhi kàddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu adama wax ne ne suñu maam aadama alayhi yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax chiit mu nekkoon itam doom ju yéeme ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayril arab Sidi Xaaji Maalik Si mu ngi fay wax ne wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiiratil karami mu ne chiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa looloo tax ba muy ñëw àndu ak kenn moom dong moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa bi nekk ci moom chiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam aadama mën a fàtte Haabil mu nekk nag gone gi sës ci moom mu koy wax ay mbóotam di ko wax ay xabaaram yàlla itam def ci moom secréem suñu maam aadama alayhi salaam ne bu fi jógee siis moo koy donn mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi moo tax moom siis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam moo tax nag ñu ne suñ maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom waaye nag Qaabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil moom suñu maam Adam daf ko dàq daf ko dàq génne ko këram ndax dafa moy ndigalam yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit kon nekk na àq ndax mooy na waajuram nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax adun ci réew mu ñuy wax yaman fa la nekk nag fa iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax sa rakk jël sarax yàlla nangu saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sa rakk ji ak aadam safara lañuy jaamu te yow nag mosuloo jaamu safara looloo tax safara mere la jëlul sa sarax looloo tax safara si ñëw rekk jël saraxu sa rakk ja di Haabil ndax sa baay ak Haabil ñoom safara lañ doon jaamu kon nag soo bëggee nag jubóog sa boroom dangay ngay jaamu safara ndax safara mooy sa boroom wax ne ne moom Qaabil moo njëkk a jaamu safara waaw moo njëkk jaamu safara moom ak njabootam ndax iqlima moom nga xamante ni itam moo doon seexam ñoom ñaar ñoo mujj ànd di sëy léegi nag ñu mujj foor seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lépp luy xeetu instrument boo xamante ni danañ ko jëfandikoo ci wàllu musique ñu wut ko nag di naan sàngara seen kër nekk kër goo xamante ni bañuñu dara lépp luy lu bon ñu ngi koy def moom ak njabootam ci melokaan wu bon woowu la nu nekkee di jaamu safara di tëgg di way di fecc ba ñu ngi yàllaa ngi leen alage ci jamonoy yonent yàlla nuux ba yàlla tawloo asamaan gëqaloo suuf ndoxam ci lañu alku ñoom ñépp mu mel nag am na sax ñuy wax ne xaabil mi nit ku maanaam jéppi gi ko yàlla jéppi taxoon na njabootam nekkoon ay nit ñu ñuul wante ñi wax loolu waxuñu ko lu dul rekk dañu ko wax ngir wàllu racisme wante du xaqiqa boo xamante ni mën nga caa teg sa loxo ndax gisuñu fenn ci alquran fu yàlla gënalante diggante nit ku weex ak ku ñuul wala nit ku xonq wala nit ku jaune lu dul ne yàlla def ne daal ngëneel mu ngi ci ragal yàlla ngëneel a ngi ci xol moo tax kon ixtilaaful alwaani wal alsul maanaam li yàlla wax ne seen wuuteeg melokaan ak seeni wuuteeg làmmiñ man sama kéemtaan la man yàlla maa ko def sama bëgg-bëgg bopp la maa ko def waaye du ko weex dafa gën ku ñuul ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne annaasu sawaasiyatun ka asnaani almusht la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñoo yem comme ba ñu peñe mu ne ku weex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku weex nee na ngëneel bi daal mu ngi ci ragal yàlla te itam bu ngeen dellu ci histoire da ngeen gis ne aadam amul woon couleur buñ ko mën a jox mënoo wax ku weex la mënoo wax ku xonq la mënoo wax ku jaune la mënoo wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa daje woon ci moom waaw moo taxoon ñu tuddee ko adam ndax al udma mooy lu tikk gis ne ni itam ku mel ni luqmaanul xakim alquran tudd na ko tudde nañu ko saar mu doon nit ku baax nit ku rafetoon ay kaddu alquran cité na ko wane ay jikkoom yu rafet wax nen ne nit ku ñuul la woon yonent yàlla Muusa ñu bari jiiñ nen ko ne nit ku ñuul la woon maariyatul xibtiya mi nga xamante ni moo juróon ibrahima miñ doon wax léegi te bi mu génnee àdduna e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy mariya mi neneen nit ku ñuul la woon bilaal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki njëkk a nodd ci lislaam te yàlla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko te noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xarool ay martaba yu rëy moom bilaal moomu nit ku ñuul la woon kon wax jooju day daal di dàqu mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di siis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamante ni suñu maam aadama alayhi salaam yàlla dogal na mu génn àdduna keroog nekkoon na bis bu tiis ndax cofeel gi nga xamante ni ay doomam amoon nañ ko ci moom ndax yàlla def ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamante ni moo leen jur moo tax jur nekk na yonent ci ay doomam buñ la ko laajee moo di aadam mooy wayjur bi nga xamante ni yonent la ci ay doomam ndax ñiñ ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaaka yu bari wàcc nañu jibril jiite lañu jiite leen bi ñu ñëwee bi ñu ko sangee defar ko ba pare sang ko ba teg ko pour jullee ko wax nen ne Chiis dafa wax Jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko mu ne ko déedéet doxal ca kanam nga jiite nga jiite ndax yow yaay sa xalifa baay yaay xalifaam fii ci kaw suuf li mu doon doxal yaa koy doxal kon nag taxawal nga jiite ko moo tax Chiis moo jiite woy juróom woowu di suñu maam Adam alayhi salaam gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ruuxam gu sell ga fàddu waaye wax na ni rey gii nga xamante ni rey nanu ko Haabil te Qaabil rey ko nekkoon na mettit woo xamante ni mettit wu doy waar la mettit wu yéeme la ba tax na itam yàlla dëgg na ci tëkku bépp nit boo xamante ni dangay nekk ci kaw suuf di yàq surtout ngay def lu grave ni rey nit ndax am na xeet wu ñuy wax banu Israil ñoom waxuma la sax rey nit waaye dañ daan tànn ay nit ñu baax di leen rey daan nañu rey ay yonent waaw di tuur seeni deret rey nit ci ñoom comme naan ndox yàlla nag ne rey nit garaaw na garaaw boo xamante ni ku ko def duñu la mën a faye lu dul safaraw jëhannam moo tax yàlla ne kon rey gi ñu rey qaabil eh, rey gi ñu rey haabil tax na min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadan fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamia wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamia yàlla nee na képp ku rey bakkan mel na ni ku rey benn nit mel na ni rey nga nit ñëpp nee na itam ku dundal benn nit mel na ni dundal nga nit ñëpp kon loolu day wane ne E, reykatu nit bi ka mu rey reyu ko moom dong waaye reyaale na société bi yépp médecin bi faj nit ki itam di ko jox ay garab di ko dimbale ba mu wér kooku na jàpp ne dundalul benn nit waaye dundal na nit ñépp ba tax na itam bu ko yàlla di fay fay bu rëy la koy fay yàlla fonk na nit fonkeel boo xamante ni bëggul sax nit ki rey boppam ndax boo reyee sa bopp dañ lay jàpp dañuy jàpp ne nit nga rey ci jamono yonent bi sallallahu alayhi benn waay bu nga xamante ni ñëpp seedeel neen ko ak njàmbaar ci xare bi muy xare di rey di xare di rey ba ñëpp ne kii daal ub na làmb ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa bi bëgg ko lool kontaan ci ni mu doon xeexe waaye bi ñu xare ba xare bi jeex yàlla dogal mu amoon ay gaañu gaañu ci biir xale bi gaañu gaañu yooyu nag def ko feebar waaw def ko feebar moom nag amul xol bu mu muñee nag gaañu gaañu yooyu mu rocc jaasim jaasi jim doon xeexe daal di jam boppam daldi xaru dee ndax metit yi nga xamante ni daloon na ko ci xare bi te mooy gaañu gaañu yi mettitu góom yaa tax mënu ko woona a muñ mu daldi di faf xaru bi ñu ko waxee yonent bi yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne innahu min ahli naar yonent bi daf ne kooku nitu safara la ñu ne ko ak njàmbaar gi mu wane ci xare bi yépp mu ne waawaaw ndax dafa njëkkanteeg yàlla boppam yàlla kenn du ko reyal dañuy bàyyi rekk mu reyal boppam kon xaru baaxul moo tax itam ñi nga xamante ni dañ leen di tuddee ay addu kalpe ñuy dogale nit ñi di leen rey di nangu seeni alal yàlla wax na ak ñoom tëkku na leen fii ci àdduna tëkku na leen itam alaxira ndax ay yàqkat leen ci kaw suuf mooy agresseur yi nga xamante ni ala la tax ñuy faat bakkanu nit mi dafa am benn addu kalpe boo xam ne dafa jàpp benn waay bi mu jàppee waa ji ci àll bi moom dong ndeysaan deke waa ji yàlla dafa dogal mu am njaboot njaboot tax nag muy tukki di ñëw nekk commerçant ci biir loolu nag mu dajeek addu kalpe boobu addu kalpe bi daal di koy jàpp su yére ya mu yoroon nangu alal ji ba di seetul dara bàyyi ko muy dem far seytaane mën addu kalpe bi addu kalpe bi woot ko ba mu ñëw mu ne ko duma la bàyyi sax nga dem dama lay rey mu ne ko nangu nga sama alal yépp ba summi sama yére te nga ma bàyyi ma dem rek mu ne ko déedéet dama lay rey daal di koy jël yeew ko bam ne ŋodd fas yéene koo rey waa ji tinu ko tinu mu bañ jékki-jékki nag am benn pittaxu póol benn piccum póol mu romb di naaw waa ji daal di ne yow pool mi yow piccum póol miy romb maa ngi lay seedeloo ne maa ngi lay seedeloo ci sama digganteeg sama boroom ni waa de jàpp na ma nangu sama alal te lewu ko loolu doyu ko yeew na ma pour fas yéene maa rey maa ngi lay def seede ci sama digganteeg sama boroom waa ji addu kalpe bi daal di xaqataay ne ko yow amoo koy jàpp koy def wéeruwaay koy seede loolu lu dul pita pitaxum pool mi waaw waa ji noppi ba mu ko yeewee ba pare daal di koy rey ba mu ko reyee nag ñu toog diir bu yàgg am benn buur ba falu ci dëkk bi gis ne nag addu yi bari neen ci àll bi mu wut ay soldaar ne nañ leen jàppal addu kalpe yi nekk ci àll bi bi ñuy wër nag ba jàpp waa jooju mu bokk ci ñuy jàpp bi ñu ñëwee buur bi daf ko laaj ne ko lu tax nga nekk ci àll bi di dogale nit ñi mu ne euh, dama koy def nii rek ndax dama amul dara lu ma dunde buur bi ne ko kon dama la bëgg a jël teg la ci ñi ma gën a jege nga nekk ci sama wet te nga bàyyi li mécc mu bon mi ndax mécc mi baaxul boo léegee daal danaa wax ak samay ñi may eh, samay conseil dana am nag place bu baax bu ma lay teg nga nekk ci sama wet bu muy tukki ñooy ànd nga nekk ci sama wet ma wutal la itam solde bu baax te nga génn ci lii mu ne d'accord mu commencé ànd ak buur bi buur bi itam xeetu taranga bu nekk defal nag ko moom addu kalpe boobu ñu dem ba bis rekk yàlla dogal buur bi comme mook waa ji ñoo daan bokk di reer bokk di añ bokk di ndékki mu nekkoon buur bu baax bu ragal yàlla yàlla dogal nag benn bis ñu toog di reer ndeke buur bi dafa toggulu woon ne nenu ko defaral tey daal yàpp picc la bëgg reere ñu wut nag benn piccum pol mu duuf defaral ko ko ba mu baax ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallah waaye bi ñu tegee reer bi rekk bi bi addu kalpe bi toogee buur bi toog ñëpp toog ñëpp a ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nekk ci buur bi rek jékki-jékki rek addu kalpe bi daal di xàqataay ca kaw ba ñi toogoon ñëpp jaaxle buur bi nekkoo ko looy ree mu noppi mu ne ko addixku bila sabab min qillatil adab mu ne ko ree bu amul lu ko waral ñàkk gin la te nag sama xadara bëgguma ku fi ku ñàkk gin di fi toog looy ree mu ne ko picc mi rek moo am lu ma fàttali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn waay bu ma mas a ma nekkee addu kalpe dafa am benn waay bu ma mas a jàpp waa ji commerçant la woon ma jàpp ko nangu alalam ba yére ya mu soloon sax dama ko nangu bi ma ko bàyyee muy dem jékki-jékki sama xel dem ci ne daal dama ko war a rey ma daal di koy woolu ba mu ñëw may yeew ko pour rey ko waaye bi ma ko yeewee ba tëral ko am na benn piccum póol mu romb keroog nag reetaanloo na ma ndax dafa doon seedaloo piccum póol bi naan ko maa ngi bëgg nga seede nga nekk seede sama digganteeg sama boroom ci waa ji ndax mu may rey te tooñuma ko mu ne ko keroog dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool buur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nag mu ne dama ko rey buur bi ne ko man musuma xam ne ndeke mas nga rey nit mas nga rey nit mu ne ko waaw waaw waa ji de rey naa ko mu ne ko kon nag tey jii lanu lay rey ndax yàlla moo wax ci alquran ni inna nafsa bin nafs ku rey bakkan dañu la war a rey daal di koy taril aaya ba ne ko innama jazaau allazina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yascawna fi l ardi fasaadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min al ardi dalika lahum xizyun fi dunya wa lahum fi l axirati cadaabun cadiim mu ne ko fayu gaa ñi nga xamante ni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko ñi ci reyul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokk ak réew ma ñu dëkkoon loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna waaye yowmal xiyaam daneen fa dajeek mbugal mu metti mu ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa làmmiñ mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ne yàlla ku maandu la pi taxum pool mi moo ko seede seede bi nag feeñ na tey tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo kon ngeen gis ne atte yàlla feeñ na foofu moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn wéerul rekk ci yàlla ndax doy na sëkk wéeruwaay mu mel ni kon qaabil mi wax ne ne képp ko rey nit ba ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba ndax moo njëkk rey nit waaw képp ku rey nit rekk qaabil mi dana am ca bàkkaar ba ndax moom moo njëkk rey nit wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnuk àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci ci génnuk àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo dine keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si ruuxam xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax jibril moo di saaxibul waxyi war risaala moom la yàlla dénk wax yi ak risaala yi mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi boo ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téel yàlla wàllu googu waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam Azrail moo di malakul mawt moom la yàlla dénk wàllu roox yi wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna danga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi bu dee asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu muy an e, nafxatul ula ak an nafxatu waaye wax na ne keroog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam aadama alayhi salaam pour mu génn àdduna malaaka yu sell lañoo ko jël si ndax dañu wax ni nit ki su fekkente ni war nañu jël si ruuxam mu war a faatu wax ne ni dañuy tëj làmmiñam nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka ñu ñëw waaw ñeenti malaaka yi ñëw su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara day mel ni kullu day mel ni muuma nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ko assalaamu aleykum yow kat maa ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man man anam wakkalul rizq man lanu joxoon sa wàllu wërsëg tuftu fil ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min ma luqmatan mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu ciy jële wërsëgu waa ji di ko indi magasin boobu dara desatu ca moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw yow mii daal danga ma niru ko nar a faatu beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ne ko man la yàlla dénkoon sa naan wante wër na la ko dale penku ba sow gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege ki noonu beneen malaaka dana dugg si mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noyyi wër naa suuf si penkook sow gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw li ki noonu beneen malaaka dana dugg si moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ni ko assalaamu aleykum man kat man la yàlla joxoon sa dikk say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon waxtu ya nag jox naa la ko ba fu ne nii jeex na wër naa penkook sow pour wutal la waxtu waaye amatuma benn waxtu yama yàlla joxoon jeex na kon nag foog naa ne sa saa dafa jege foofu nag la wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe bu malaaka buy ñëw ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibiina yaalamuuna ma tafaaluun moo ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf la ca baaxak la ca bon bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see ñii dugg see côté ndeyjoor su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jóge côté ndeyjoor bu ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum moom kay mu ngi tëdd rek waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ñun la yàlla dénkoon say rafet-rafet daal di nag li mu jot def yépp ci lu baax ñu génne ay feuilles yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet daal di ko koy wan buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég noonu am malaka maanaam malaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam ñoo ko fare côté càmmoñ malaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw ñooñu nag ñooy ñëw ne ko ah, ñun kat la yàlla joxoon pour ñu wara a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di génnee seeni pappiye rendre ko compte wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba su boobaa nag da gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmooñ ndax bañ a gis liñ ko wan ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nangoo jàng ndax lamu ca def neexu ko te fu ne nii tëj nanu wàllu e, gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte léegi nag bu ñëpp demee bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibiina yi jeex na ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre la ca baax ñu def ko benn livre ñu ñëwee nag moom la ñu koy jox suy dekki moom lay dekkiwaale su malaka yooyu demee am na beneen malaka buy ñëw su ñëwee nag dana ànd ak yeneeni malaka malaka moomu nag moom la ñuy tuddee azrail mu di malakul mawt bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp moo di ne yàlla wax na ko ne ko néew kële tëdd kat appam jeex na kon demal nga jëlal ma ruuxam nee bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal seytaane itam dana ñëw toog su seytaane ñëwee toog foofu bëgg na nañu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illa ndax seytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer weddil yonent bi weddil diine lislaam su ko defee néew bi nag mën nay wax ak naan ko un uh-uh. waaw déedéet su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah mu ne déedéet déedéet ja tombeeg nga naan ko waxal sa njort mën na ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe looloo tax mu lay gantu fekk gàntu wala cheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaaka mawt bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yi yërmande ya ñooy yéeg ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil alamin yóbbu ko ci pays bu sel ba su fekkente ne nag néew la boo xamante te texewul yàlla maanaam malaaka yi dañuy jël malakul mawt dafay jël ruux ba jox leen ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñoom ñoo koy jël yóbbu ko ba ci asamaan bii ñu tiim foofu nag bu demee danañu tëj buntu asamaan yépp waaw neneen buñ ko yóbboo ba pare nag danañu delloo siwaat ruux gi fekk fi nit ki tëdd ci bàmmeelam ñu solaat ko ruux gi moo tax ñu ne foofu nag ñi saxal mbugalum bàmmeel foofu leen ko saxale moo tax nag boroom xam-xam yi wax ne werante am na ci ñi wax ne mbugalum bàmmeel am na ñooñu am na ñu ne amul ruux gi rek la mbugal kon mbugalu bàmmeel amul am ñu ne am na kay danañu delloo si ruux gi ci yaramam mu toog nam daan tooge ci àdduna malaaka yi di ko laaj su fekkee taxewul daneen ko duma bu taxee daneen ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw am na sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko wante daal li gën a wér ci boroom xam-xam yi ñu wax ko moo di ne daal mbëggalum bàmmeel moom am na waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbëggalum bàmmeel nee na fokk nga moytandiku ñeent fokk itam nga jàpp ci ñeent yent bi sallallahu alayhi moo ko wax mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muxaafadatu solaat soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel da ngay sàmmoonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel na nga faral di saraxi ndax saraxi day daq mbugalum bàmmeel soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bari looy wax subhanallah mu ne ndax fa inna hadihi al ashya tudiu al qabra wa tuwassiuhu ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fenn fenn day waral mbugalum bàmmeel waaw mag ñi ne neen jeexitalu fen ci la yàlla moo mooñu suuf looloo tax suuf ñuul kon jeexitalu fenn baaxul rawatina fenn ca boppam ñu ne ba ca topp moo di wor waaw nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko ba ca topp itam moo di rambaaj ràmbaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel moo tax yonent bi sallallahu wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi al qabr minhu yonent bi nee na na ngeen góorgóorlu ci góor góorlu leen ci laab xam leen naka ngeen di laabe ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel waaw ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci duus naka la ñuy tàncoo parce que tàncu itam eh, dafa nekk loo xamante ni lu am solo la waaw ndax bari na ku dugg ci duus jàpp eh, tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko kon mu mel ni e, wax nanu ne daal e, nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam ndax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne bu fekkente ni nit ki e, addunaam jeex na alaxiraam taxaw na nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan malaaka yu rafet nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi nee na den ko xaw a dàndu tuuti rek ba malaaka mi jël ruux gi su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc du ko rocci lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakkan bu teey bi te sell yàlla moo soxla su ruux kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya nee na bu keroog bu roox ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof génn goo xamante ni day mel ni rekk ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki e, dañoo tekki e, gémmiñ ga na ndox ma di yole nee na noonu la roox ga di yole ndànk daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg kon mu mel ni noonu la malakul mawt di jële ruuxu nit ku baax daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal daal du ko yëg su jëlee roox gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar su jëlee rox gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo ñoom nag ñu naaw ak rox gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan yi benn par benn malaaka yi di leen ubbil léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw boroom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax léeg-léeg ñu romb ay malaaka malaaka yi di laaj waaw sama gaay yi ñoom tey ban nit moo faatu kii kat moom xetam gi neex na cortège bi sell na kii de xanaa ca walu yàlla yu mag ya la nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna bu fekkee Abdul Aziz da tudd ñu ko koy wooye di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg ñu mel ni président boo xamante ni dafa ñëw di def visite na ko nit ñi di teeroo di ko tàccu noonu la ñuy noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam turam yu sell yooyu su fekkente ni itam Muhammad la tudd wala Moustapha wala Muntaqa tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gaa yi dañu koy wax moom malaaka yi dañu koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya di ko gërëm ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm su malaaka yi demeek ruux boobu ba ca asamaanu juróom-ñaar nee na daneen fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga àddu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi illiyiina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nucidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra nee baat bi leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci àjjanay illiyeen ca la bokk te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo te bu ëllëgee itam ci suuf la ñuy dekkee nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi su ko defee nag bu ñu ñëwee lañuy laaj néew ba ay laaj la kan mooy sa boroom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan mooy sa yonent su ko defee nag dana wax ne eh, yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa mooy sama yonent wàcce woon neen ci moom alquran gëm naa ko dëggal naa ko nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay àddoo ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la kon nag yaatal leen bàmmeelam wutal leen ko fi ay matelas yu nooy wutal leen ko fi yére yu baax wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex ubbi leen nag digganteem ak aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tolloog fa gis-gisam yam waaw fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal lenn rek lay ñaan yàlla ay yàlla yàlla nga gaaw waaw yàlla nga gaaw tukkal àdduna bi ba ma mën a gisaat sama njaboot ga su fekkee sa njaboot nag danga leen bàyyi woon ci lislaam dangay ñaan nag naan lislaam ga ñu nekk de yàlla na nu ca sax yàlla buñ ci génn ba bu ëllëgee ñu mën maa fekk si fii ci xéewal yu rëy yii ma nekki moo tax xabibun najaar ba ñu ko reyee mu wax ne yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin kooku alquran moo ñu ko nettali mu mel ni kon malaaka yu sell yooyu ñooy ànd ak jaam yu sell yooyu cortège seen ruux ba defal leen taraanga yi nga xamante ni moom la leen yàlla xarool wax ne foofu nit ki toog ci biir bàmmeelam nee na dana fa fekk benn jëmm ju rafet waaw ba rafetaayam yéem ko moom waa ji su ko defee dana laaj jëmm ji ne ko waaw yow yow yaay kan man daal maa raaytu axsana min mosuma gis ku la gën a rafet yow yaay kan ak lu tax nga may wéttali ci biir bàmmeel bi nee na jëmm jooju nag moo koy tontu ne ko ana ko saalix man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci àdduna yàlla moo ma def ma di jëmm pour wettali la ci sa biir ci ci sa biir bàmmeel kon nga xam ne nit jëfam ju baax a koy wétali ci biir bàmmeel wante itam jëfam ju bon moo koy wétali ci biir bàmmeel yal nañu yàlla xiir ci ñuy def lu baax kon suñu maam Adama alayhi salaam mu ngi bokk ci gaa ñooñu nga xamante ni malaaka yi jël nañu rooxam jëlin bu sel dëkkal ko ci bàmmeel dëkkin bu sel ndax itam bëri naag seytaane ba daan seytaane dellu na bokk ca ñi nga xamante ni am na nañu seen ngërëmul boroom mu mel ni suñu maam Adama alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal jagle yi ko yàlla defal nag bari na ndax wax nañ ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adama yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom loolu doyul yàlla ëf ci moom ruuxu boppam waaw wa nafaxtu fii min ruuxi yàlla ëf ci moom ruuxu boppam ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet nit a dàq ñépp waaw fii ci kaw suuf waaw xatta malaaka bind bi yàlla bind nit moo leen dàq waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suuratu tiin wax ne wattiini wa zeytuun wa tuuri siiniin wa hada albaladi al amin laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim xoola yàlla giñ na ci tiin giñ na ci zeytuun giñ na ci tuuru sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñeenti yëf lum wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom yàlla ko bind ci loxoom bu tedd ba bind ko itam ci melokaan wa rafet waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wu rafet yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bàkkan ba ba mu tisoolee yàlla daf ko déey ne ko waxal alhamdulillah mu wax alhamdulillah moo tax yërm doomu aadama yërmande yàlla la gën a jege ci meram ba ca topp itam e yàlla dëkkal ko aljanna mu di beneen xéewal bi ci des itam mu jàngal ko tur mu di jagle ci moom